ne ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di leen siyaara mu mel ni tey ñu ngi waat fii si cité douane si bisu xasida bu tedd bi nga xam ni daayira bi nga xam ne mooy fa daayira wax xajaayil bi nga xam ni moo lëkkale daayira nuuru daayira ni ak beneen daayira bi nekk xam ne ñoo bokk liggéey bi ñu defoon ko daaw ren ñu teewaat fii di bisu xasida bu mag boo xam ne dañ koy def année ne ñu taxaw ak ñenn ñi nga xam ne ñooy jëwriñ ñi taxaw ak seen xaadim ak ñi ne ñoo jiite waañ bi xanaa ju leen laaj rek bis bi bu dellusee yan taxawaa ngeen ci am ak ban yëg-yëg ngeen ci am ak ni ngeen xam ne noo ngeen ko àndee ak mbokki taalibe alhamdulilah alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu mbooleem ñu teew ci bërëb bi di nuyu kilifa yëpp nuyu suñu jëwriñ yi nga xamante ni tey ñoom lañ bokkal liggéey bi waaye di nuyu sëriñ xaadim mi nga xamante mooy jëwriñu Nuuru Daarayni ànd koog adaayaxul fadaayili bu Touba parcelle jokkoo bi jokkoo parcelle bi Touba inte 1 ñu ànd ànd bu rafet waaw liggéey bi wax dëgg yàlla duñu ci gan ndax dañu bokk loo xamante tey Euh, dafa rafet bu heure bi moo tax bu ñu amee bis bii rek seen xel daj lu bisub jokkoo bi daayira jokkoo cuisine bi ñu yàgg ko àndee ànd bu rafet bu dul bis bii tamit yeneen bis yi ñoom dañuy dagg seen yëpp di ko ànd ak ñun waaw kon wax dëgg yàlla dañ leen di beral nuyoo euh, ñaan leen yàlla bis bi ñu am ci lu kawe seen njort waaw ñu santaat yàlla ci buñ santaat ci bu baax ci liggéey bi nga xam ne moom lañ bokk euh, di sant ci éléments yi ma àndal ci liggéey bi parce que wax dëgg yàlla ñu ngi bëgg a def ay at waaye chaque année rek dañ ci gën a am lu kawe suñu njort euh, daaw seen première édition bi ñu ko defee seen xalaat demul fenn lu daayira Cuisine Jokko ñu ànd koog ñoom dama yaakaar bu ñaawoon tey ren ji seen xel du ñu daj waaye xëy na amoon nañ taxawaay boo xamante ni tey bi bis bi delluwaate seen xel dajaan nañ bisu Jokko bi ñu ñëw taxawal leen liggéey bi. kon ñu sant ci yàlla bu baax a baax a baax di gërëm ñi ma àndal ci waañ bi jëw jëwriñ Cheikh Ndiaye wax dëgg yàlla man ma naan defatuma dara ndax moom moo ne ma topp sama kaw sama ginnaaw moom wàllu togg yëpp moo ko seere kon maa ngi koy gërëm di gërëm bépp membre boo xamante yaa ngi ci biir daara ji euh, daari nuru daari nag dañ leen di doole ñaanal kenn ku daara boo xamante ay xale rek ñoo fi nekk ndax mën nañoo wax ne tey ji gëm-gëm moo leen yeggale fii ñu yegg ak bëgg Sëñ Tuubaa te dëgg si ñoom dañ leen di ñaanal képp ku leen di ñaanal ñaanal suñu borom daf leen ay mag daf leen magi murit saadix parce que li ñu nekk de ku fi ñëw dana xam li ñu nekk gëm nañ ko ndax gisuñu fi benn mag ñëpp ay ndaw ñoo fi nekk kon loolu gëm-gëm weesul loolu bëgg-bëgg weesul loolu yal na sëñ Tuubaa fayal ñu leen daayira bi yal doon daayira bi gën a dégg si daay si parcelle fii ñu leen di dégg fu ne yàlla mën na ko yal ko yàlla def daayira cuisine bi nag maa ngi leen di gërëm wax dëgg yàlla lii du gulet fépp fu ne la ñuy dem waaye fépp fu ñu mën a dem rek taxawaay bii lañ fi am te dara war ko lu liggéey sëñ Tuubaa ci la ñu commencé ci la ñu yem maa la koy seedeel bu baax ndax xam ne ne loolu tey fu ne la ñuy woo bisu xasida yi sëñ Tuubaa yu mag yëpp parce que boo xoolee boo ñëwee ñu ngay fekk ci kanam li ñu ko may mooy li ñu nekk dañ koo gëm te lii ñu nekk ku ñëw da nga xam ne tëbuñ tëb def ko dañ koo dañ ko dañoo waajal ñi fi nekk yëpp tey jii képp koo ci ber tey na ko demal mu demal boppam kon li ñu nekk tey jii caaxaani wuñ ko képp ku nekk suñu biir li ñu lay woo mooy liggéey sëñ Tuubaa te muy dëgg fa la ñuy commencé fa la ñuy yem waaw ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di ñaanal daayira Nuuru Daarayni ñu yokk ba yëg ko wax dëgg yàlla ay jàmbaar ay jàmbaar lañ fépp foo dem rek boo ñëwee da ngeen gis seen taxawaay te li foo bi tey ba fi ñëwee sëñ Tuubaa nga fi gis doo fi gis leneen lu dul sëñ Tuubaa parce que ay ndaw yu gëm ñoo fi nekk ndaw yu bëgg ñoo fi nekk yàlla na leen yàlla doole dimbale doole leen sutural yokk leen nag ñu am ay xéwal yàlla na ko yàlla defal barke sëriñ Saliou jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di siyaar itam mbokk taalibe yëpp ci bés bi nga xam ne mooy journée xasida Nour Daarayni bu Touba Cité Douane di ko ànd waa jokkoo xadaayul fadaayil muy jokkoo bu nekk parcelle diggante 1 ba 26 itam membre yëpp nekk ci euh, seen Sidi Makhtar joxoon ñu tur wi ñu ànd liggéey bi itam ànd ànd mu rafet comme ni ko suñu jëwri Moussa waxee léegi rek ñi képp lañ ko àndee nag muy ni jokkoo bi ku ci am bés itam nii lañ koy àndee taxaw ko ba mu àgg ci wàllu cuisine bi ci culturel bi ci lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko rek jëm ci liggéey Sëñ Tuubaa comme ni nga ko waxee nag ñoom it dañ leen di bu baax ndax itam saa bu ñu leen woowee ñu bàyyi seen ay yitte sëriñ bi lañ bokk waaye itam ku ne am na ay yitte boppam waaye ñëppay bàyyi seen ay yitte ñëw ci bés bi kon dañ leen ciy sant bu baax baax a baax baax di leen ci beral ak sant gu wér a wér di sant itam waa daara bi comme ni mu ko waxee rek ay gone képp fi nekk ndax ka fa mag amul 35 ans kon ay gone képp fa nekk te liggéey Sëriñ Tuubaa moo leen ñor ndax itam du bis bu tuuti te yombut waaye liggéey Sëriñ képp leen ñor te Serigne Touba jaral leen itam di ci sant itam waajur yi leen ciy jàppale ndax ay gone fi nekk te bu ci waajur yi tegu woon loxo itam di egg fii ñu ngi santaale waajur bu baax a baax a sant mbokk taal bi yëpp di sant bu baax itam yéen waa tawféex itam gis nañu année yi yëpp seen taxawaay itam sant nañ leen ci bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. rahim mbokk jullit di fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant yàlla boole muy asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh tey nag di bis bu màgg ci ñun di bis boo xamante ne suñu njaboot yi ñoom ñoo koy organiser di ko def muy fierté nag ci ñun parce kenn ku ci nekk ci ñun soo sañoo am joo xamante ne day jàng xasida di liggéeyal Serigne tuubaa ak Serigne Touba amul ku dul yàlla ak yeneentu bi rek ak xasidaam yi képp ku ko ci liggéeyal incha allahu bis bu la fayee di nga kontaan di nga ne man de su ma yëgoon dinaa gën a yokk sama pasteef ci liggéey bi. di leen sant te di leen gërëm te di leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala yal na leen diine lislaam ci barke Seydina Muhammad salaal taan ci nag programme yi parce que programme bu yéeme la bu doy waar ba nga xamante ni wàcce kaameel jàng ay xasida zikar loolu moom mooy diine macha allah yal na leen ci sama borom saxal saxal ci bépp jullit asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ñu sant yàlla di sant sunu waajur di sant sunu xalifa di ñaan sëñ taxaa yàlla na fi yàgg te wér di sant nag ndax sunu njaboot gi nga xam ne dañoo bëgg sëñ bi rek te liggéey sëñ bi rek tax ñu jóg bis bi ñu koy def chaque année ñu leen di ñaanal li ñu mën a def rend yàlla nañu ko mën a def déwén incha allah mën lu ko raw di ñaanal ñëpp di am cofeel si ñoom bu baax a baax a baax di leen sant nag bu baax a baax ndax mënoon nañ nekk si leneen waaye sëñ bi rek lépp liggéey sëñ bi rek moo leen tax a jóg liñ si wut na yàlla nag su leen borom suñu borom defal si kàttanu yàlla si bak sëñ Abdou ba Mbacke nuyu naa ñëpp ziar yi ñëpp wax jee mënul <laughs> ñàkk rek waaye mënu maa wax <laughs> bisimilah maa ngi ziar mbokk taalibe yi euh, di leen sant bu baax si seen teewaay alhamdulilah ñu ngi amal tey journée xasida ci cité douane Nations Unies di ko boole ak euh, bokk ak waa cité douane Nations Unies ak cité ma ñu ko booleek ak Cité Douane ak waa Nations Unies mu nekk benn daayara du tàmm di def journée xasida bi ñu koy def chaque année ren tamit ñu teewalaat ko di sant yàlla bu baax waaw ci bis bi tamit euh, gis nañ mbokk taalibe yi suñu yaay yi ñun ñëpp taxaw si gis nañ taxawaay bi liggéey bi ñëpp ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si nekk macha allah alhamdulilah waaw di di di koy ñaan di fexe tamit incha allah ñu gën gën see taxaw di ñaan di ñun ñu ko mënee ren di ko déwén mu gën see yokk. الأمر والنهي salli fa faaba kulla faadili nuyuwaat mbokki taalibe yëpp ñu mel ni dañoo toog ak yi nga xam ne mooy ñi nga ñoo amal bis bi bokk ci waa Hizbut waa jiite mbooloo mi nga xam ne ñoo fi ne di jëwriñ li tey ñu fekk ko fii si jotaay bi xanaa ñu lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax mu mel ni tey ñu ngi teewaat fii ci na xasida bi suñu borom def ñu fekkewaat ko waaye njaboot gi taxawee ko ngeen jiite leen nekk seen kanam nekk seen ginnaaw yéen kàddu nga leen di dolliwaat bu baax ñu gën a jàppaat liggéey Serigne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wér xanaa ci lu ñàkk rek ñu xam ni di ko sëñ Muntaxa di waxee jumtuwaay ya nga xamee ni moom la mag ñe liggéeyale la rasulullahi sallallahu alayhi wa dellu si liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa jumtuwaay yooyee jógu fi poste rek la laaj ndokk ba nga xamee ni bu sëriñ bi dikkee daf ñu indil lii nga xamee ni mu waral bésu tey bi muy xasida ñuy wër karamam fu nekk kenn ku nekk di yootu di xalaat foo ku ñu fa la karamam nekk waaye moom mu xamal ñu ni man de samay karaama mooy sama mbindum loxo mi ñu jàppal ko bés bon bés boobu mooy bésu karaama yi Sëriñ Tuubaa bés boobu nag mu mel na mook dëppook ñu ko sëñ Muntaxa waxee li nañuy liggéeyal Sëriñ ci xasida yi ndax xasida yi mooy bunt bi ñu koy liggéeyale bon bu njaboot gi jógee di leen liggéeyal ci boobu ñun duñu def lu dul dal yeesalaat suñu cant te xam ni ña ngi ci yoon wi yoon wi ñu nekk nag yàlla nañ sëriñ Tuubaa taxawu omat leen ñu leen ci omate waaye ñu tàmbali gi ñu tàmbali ñu bokk ci ñuy yeggale ci barke Ahmadul Xadim dolleeti nañu sant bu baax a baax a baax ndax xasida yi day moom rek moo taxawal adduna mu taxaw réew mi dañuy wax senegal waaye adduna yëpp ndax sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom waxee inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yaa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ni ñu koy comprendre rek mooy yàlla bu waxee mbir mbir moomu day am constance boo xam ni du yéeg du wàcc degg lay def fi benn bërëb waaye ba ko yàlla waxee inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ba mu ne yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa wet googi nga xam ni suñu borom wéet na ci julli googu mu jullil yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko ñaanal mucc ak xéwal sëriñ Tuubaa ko ci fekk loolu nag scientifiquement lañ koy démontrer <clears throat> ndax àdduna 24 heures sur 24 heures bu ñii dee nelaw ñii ña ngi yeewu te amul fu murid yi nekk te nekkuñu nekk ci xasiday sëriñ Tuubaa yi te xasiday sëriñ Tuubaa yi génnul mat muy tag wa ak julli ci yonent bi alayhi wasalaam ginnaaw nag yàlla moo waxoon ni moom mook ay malaakaam ña ngi ci constance boo xam ne lu tegg ko sëriñ Tuubaa ñëw ci constance boobu def loo xam ne li bu ñii dee nelaw ñii ngi yeewu ñii di ne yeewu ñii di nelaw te ñuy yeewu saa su ne ñu ngi ci xasidaam yi bon moom fekki na yàlla ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman bon moom indi na constance boo xam ni fu murid yi toll ñu ngi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bon bésu xasida wi foofu rek lañu koy dugal ci biir liggéey boobu nga xamee ni moom la sëñ Muntaxa wax ni moom rek mooy liggéey bi te nga xamee ni ah ngi sant ba nga xamee ni ci la ñu toqi ci la yeewu ci la ñu fekk ñu tàbbal leen ci waaye ñu di ci góor góorlu ñun duñu dara ci kuréel bi duñ ci dara lu dul xanaa membre d'honneur waaye la des yëpp ñoom ñoo ko yor di ko liggéey ñu ngi leen di gërëm di leen sant tey ñaan ñu di ko def ay ati ati ati ati at yu bare lool te benn nekk njariñul njariñul ren li kawey lu daaw li sëriñ Tuubaa it noonu la ay mbiram amul tànk ginnaaw bon ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu siyaar yëpp di siyaar mbokk taalibe Eh, ñoo ngi fii ci bisu xasida bu ñuy wax eh, bisu xasida Nuuru Daarayni ñu ànd ceeg sunu mbokk taal bi nga xam ne ñoo dëkk fii ñuy wax Nations Unies bisu xasida bi nag daanaka bii mooy deuxième édition bi eh, lu jiitu bés bi nag mm, séddale woon nañ ay alxuraan lu ci mel ni daara yi nga xam ne nee nañ ci gott ak mbokk taalibe yi ñu jot am lu toll ci fukki kaamil te nag ci bës bi ñoo ngi seddale alxuraan ji di séddale xasida yi daanaka fi mu toll nii nag xamaguñ lim bi waaye lu ci mel ni xasida Jaalibatu Maraaxib xasida wakaana xasida nuur daarin ak xasida muxadimaatu xidma ak xasida mofaatu bichri ñoo ngi koy séddale ci bis beeg yeneen xasida yu ni mel loolu daal lañ lay taale bës bës moom bésub xasida la ah, jàngum kuréel la jàngum rajas akub durus moom lim bi amut àpp dañ koo dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy jàng rek mu mu mu bari lool ñu def ko àddiyee borom Tuubaa loolu daal moo doon moo doon moo moo moo mooy li fi amoon ci bës bi waaw xanaa buñ demee ba ci jeexintal ga rek dinañ wax ñaata lañ jàng ci xes de ci ci lim bu ne ak ñaata kaamil lañ jàng ci lim bu ne moom incha allah buñ demee bay jeexal ci bës bi rek dinañ ko jàll ziyaar ci bés sant bu baax ci di jiital ci nuyoo bi sëñ Mouhamadou Moustapha Bachir mu taxa di jiital ci moom nuyoo bi di ziyaar bu wér wér te di leen sant bu baax ci teewaay bi fii nag ñu ngi ci euh, commission culturelle bi ñi ngi tàmbalee ci subaak léegi ci jàngub alquran ci limu xasida yi léegi bu ko defee damay bàyyi soxna May mu wax ma li muy jàngu fii ak subaak léegi. asalaamaaleykum mbokk taalibe ñu ngi ziar ñëpp di rafetlu teewaay bi si ñëpp tamit di leen baaxee rek xanaa li lim ñu jot ci ñun waa commission culturelle ànd koog soxna yi daara bi ak ñu jot teew ñëpp. di leen wax ni que jàng nañ fi sindiidi lu tolloog si 59 ak tuxfatu lu tolloog si 44 jàng nañ aussi matlabu shifaay lu toll si 14 euh, jàng nañ aussi jaawar lu toll si juróom-ñaar nafaani jàng nañ ci lu toll si euh, jàng nañ salaatu ala nabi salaatu ala nabi itam def nañ ko lu toll si 3700 ak mooy bu lu toll si juróom-ñaar xanaa ñu koy fas yéene noonu rek di ko euh, def noonu